الأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من بين يديه ومن خلفه ألا تعلم نعبد إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ما أرسلت به ولكن أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا walan tudillu baadahu abada asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, ñoo ngi sant yàlla bu baax mbokk yi di jiital ci nuyoo bi famille sunu papa sunu maam El Hadji Ibrahima Ndiaye ñu tuddee ko bés bu màggee nii nii rek la mën a demee. la garwa an yahduwa abihi mm. comme ni ko borom maqaama waxe ku xam seen maam ca kaw njaayeen ba ci suuf ba ci sunu baay ibrahim Njaay mi fi jóge dàllu mag ñi la soloon yéen it ngeen sol ay dàllam ñëw ñu tuddee ko bés bu màgg muy bésu alquranul karim moom rek la fi am sañu ñu ko tuddee lu dul bés bi parce que moom la liggéey doon ne ko ci maam warisahu kaabiran an kaabirin da ko donnee ca kaw ba mu wàcce ci suuf te ñii duñu mujjee puso bi mukk mu réer wala déet mukk ci àdduna fasuñu ko yéene kon nag tur wi daa uyu boroom ñuy gërëm bu baax a baax njaboot gi dagg seen lépp teew moo leen war ñuy am mbégte bu baax a baax si njaboot gi nga xam ne ñoo organiser lu ni mel liñ ci jot a fekkee fekkee ko ci mm-hmm. ba xam alquran ak gaami alquran ak mm-hmm. galani alquran mm-hmm. doo ko dégg mukk te sa rongoñ dalul ci sa dën la parce que téere la boo xamante ne bi soo ko déggee sa deru yaram mooy mooy fet-fet yi bu fet-fetee xol bi day fees bu feesee nag moom wallahi da ngay gis ne sa rongoñ foog mu dal ci sa dën ma fi teewal nag sunu mbokki daara yi nga xam ne ñoo nekk ci côté dend bële Cheikh Abou Bakrin waroon naa teew daara ju mag la fi yore mm-hmm. waaye mën naa am mu dabe mm-hmm. waaye bu ndey bu ñëwul it mm-hmm. waxaaleel naa ko turam ak sunu mbokk yi nekk ci gox boobu yëpp xale yii organise lii keroog ba ñu ñëwee ci man wax ma thème bi ma ne wallaahi wax nga dëgg yonent bi saasam dafa kalaamee nit ñi ak seen borom allahu akbar yàlla nett la ñu ko ci suratul furqaan kalaame men kalaame waaw وقال الرسول يا ربي آه. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا آه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا يالا سما بروم سماي موك ييغا خامني القرآن مولين توج مولين ييكتي ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم تاي لو قريسين أم القرآن موكو كماي بن نوبي نك ني تونغو القرآن داخ واخ جي فوفو لا يم سيدنا عمر دير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب القران دا لاي جوخني مي واخول اك يو نيتي سا غناو لاي واخال تي دا نو تونغو القران ني نيو سي نيون ньоكو جانغ نيكو سي جانغ ني نيو سي نيون ньоكو تي دغ نيكو تي دغ ني نيو سي نيون ньоكو تي جيفه نيكو تي جيفه ني نيو سي نيون ньоكاي سيلال والمخلصون في خطر عظيم كوم نيكا حسن البصري واخي لان الناس كلهم هلكا الا العالمون

du mës a wàcc da ngay bokk si inna allaha yarfau bi hada alkitaabi aqwaman alquran boo koy jàng di ko jàngale da ngay tuuju ci kaw doo nekk ci suuf dama dama dem si benn ndaje bu benn mbokk doon tëjee firi alquranam benn waaye ne xayrukum man taallama alqurana wa allamahu kenn si ñoom ne tonnet ne gis ngeen waa alquran ci kaw la ñuy nekk mu ne lan moo tax mu ne seddu leen hadis bi amul masque suuf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 إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم فصبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بكتتي سنتي البرب سبحانه وتعالى مؤمن باخي خيول القرآن الكريم مؤمن بس بنك نتي غرغرلو di ci jema a jàng kémti lay katan waaye diko jema jéem a déglu kémti lay katan te diko jema tasare a tasaare lay katan yàlla na nu yàlla may tawfiiqu diko jëfe yàlla nu yàlla bolé ci ahlul qur'an al karim ku nek ci ñun mën nga def ay jéggo bolé sa bop ci al qur'an al karim ndax lolé la la sa borom digal waaye li ci ëpp solo yal na nu yàlla bolé ci al qur'an al karim mbokk yi fa yàlla di bind turu jaam yi ca asamaan ñun ñi fi nekk ñëpp liste ñooñ alquran yàlla nañ fa fekk sunu tur te yàlla na bu ko yàlla effacé benn yoon ci aduna ba keroog aduna di tukki te ci dunduk barzax muy aalamal barzax yàlla nanu yàlla boole ci ñooñ alquran yowmal qiyaam yàlla na nu yàlla boole ca ñooñ alquran biir aljanna yàlla na nu yàlla boole ca ñooñ alquran alquran kese moo tax ñu daal di wuyu si njabootu alquranul karim fii ci tëngéej yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala nangul leen seenu sofu ci alquranul karim ndax ñaar ñi ci gën a fës ca bopp ba ki ci jiitu di cheikh Souleymane Jaabir muy Souleymane Mbow yàgg naa jóge ci dëkk bii di ànd ak ñun ñuy dem ci jotaayu alquranul karim bal li ëpp ci raison yi réew mi ànd na fa ak ñun te alquranul karim rekk waral bi ñu xamante ak moom mu ngi am si ay at yaakaar naa boor yi 2014 la te ci jotaayu alquranul karim nii lañu xamante yàlla dogal na sunuy daje su fekkee daje nañ téeméeri yoon wér na ma te wóor ne juróom-ñett fukk yépp jotaayu alquran la ñaar fukk ya ca des yépp jotaay bu dagan la ndax su dul ngénte céet la wala li nga xam ne dagan na ci dundu doomu aadama depuis jamonoy les partisans du Coran de Dakar ba léegi muy wéy ci alquran al karim mu nekk koo xam ne wér na ma te wóor ne man de naw naa ko lool ci téere bi waaye naw naa ko ci ay jikkoom Cheikh Souleymane yàlla na yàlla sàmm la te ay sëriñam xitam naw nanu ko gërëm nanu ko ndax ànd naa ak moom ñu war koo jébbal lijaasam ci riwaayatu xafsin an aasim yal na yàlla sàmmala Cheikh Souleymane bàyyi tamsiir mi mu àndal waaye ak seen rakk ak seeni mag yi topp seen ginnaaw di leen wax ne yal na yàlla gërëm leen mbooloo mi du tënk ci lenn lu dul innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda dañ leen a nàmpatal ci ngëm yàlla yar leen ci ngëm yàlla ñu daal di génn ci kër gii daal di yóotu ci sofi li nga xam ne mooy alquran ak yokku ko fas yéene koo andi ci dëkk bii yaatal fi alquranul karim ci goxi te nga jib waaye ñu ànd ceeg borom xam-xam yu tedd yi toog nga xam ne foo leen fekk fa nuurul qur'ani wal iman yatalala'u ala wujuhihim حفظهم الرحمن yal na yàlla sàmm leen waaye ñi toog ci jotaay bépp di leen wax ne xiyaamuna sharafuna wa qiyamuna sunuy tànti alquran yi moom mooy sunuy honneur ndaxte la dikrun laka alquran mooy sunu sharaf mooy sunu izz mooy sunu jalaala ndax nitu alquran dafa xam te gëm ne nit mënu koo duggal fu gën a wóor asamaan nit mënu koo toogloo fu gën a dëgër suuf si nit mënu koo taalal lu gën a leer jant wi ndax mooy alquran al karim moo teg fu nu xas ba daje ki toog fii ak ka toog fële ca pënu ba ñoom ñoo yem kii wax ak kay déglu ñoom ñoo yem doy na sëkk nga de ci ahlul quran laa bokk doy na sëkk nga de maa ngi ci jotaay bi moo tax wallahi alladi laa huwa damay naw sama bopp lool su ma demee ci jotaayu alquran man ma toog fii ak toog fële ca ginnaaw moo ma ca doy moo yem naa nekk ni ci jotaayu alquran la waaye damay xeeb sama bopp lool ma sañ sa dem ci jotaay bu dul jotaayu alquranul karim alquran dafa fiir yàlla nañ ci yàlla boole te yàlla nangul ñu Cheikh Souleymane dafa am su ngeen gisee may naan gars yi bu ñu mos a tayal te bu ñu mos a tay yi ci jotaayu alquran yi dafa am qissa boo xam ne bii man maa ko dund tey du ma ne salafu saaleh kéemtaan goo xam ne sunu borom daf ma ko wan bal ci semaine bii la ci nitu alquran ma naw ko lool fële ca daara ja ca mbuur dafa am benn jëmm joo xam ne xaw moon sa turam ba ni mu faatoo bal xàmmee naa ko rek benn waaye dafa ñëw ci man dafa dajeeg man jotaay bii paase mu wax ma ka wax joo xam ne mu xaw ma ruslo lool mu ne ma ñeenti at maa ngi dajeeg yow ci jotaayu alquran yow ba léegi mënoo xam sama tur mané ko doyna ma rek ne xamé na sa xar kanam ne ci alquran la ko xamé te wallahi suñu daje won yowal qiyam yàlla laj ma mané xamna ko ci jotay alquran ah day fini don na am gatché ñu ne dañu xamante ci suware ba Seydi Ahmad dafa am benn jëm ci daara ja la ko xamé fële ci daara ja ci mbuur ma yek ci mom ci félu alquran bu yéme sa yo dajé ak mom ci buntu daara ji wala muy romb ci buntu daara ji dégg dong yi di jàng da ngay gis mu toog déglu alquran ba xolam féex nga dégg dënn bi ni muy yëngoo mu door a jug doxee ay soxlaam waxtu wi may génn ci daara ji dafa dem ba mel ni dafa natt rombam ci waxtu woowu su may génnee oto bi rek da koy seen fële su ko séenee nga gis ko muy waaxu te waaxu bi yëpp jox la loxo door a dem la ñaan siwul dërëm dama demoon ba léeg su ma koy gis damay xaw a tiit parce que su lay nuyu da ngay sentir wéradi gu rëy ci dënn bi te day fekk du dara cofeelam ci alquran léeg-léeg su rombee lu yàgg wala mu toog ba jàpp waxtu wi tey du ma génni soo génnee seen ko mu avance da ngay gis mu taxaw wala muy arrière pour jox la loxo door a dem xam nga kéemtaan bi may wax ne moom laa ci gis mooy lan yàlla dafa dogal barkaati démb la lii ma lay wax njabootam jële nan ko kërëm dafa ñëw ba ci buntu daara ji wallahi fala faato mustafa ngi ne ak sama wayjur dem nañ ci dëj bi barki dem rek ci buntu daara ji fala faato hunaka hunaaka tuufi kon damay naan alquran nañ ko top bañu faatu ci biir tante bi wala faatu ci yoonam namuutu wa nahnu naqra'u alquran doy nañu sëkk ñu jàng alquran ba faatu nañu ànd ak mbooloo ma suñu àggul ñu ne yàlla ci yoon wi lañ fakkastaloo hada kitabullah cheikh souleymane benn laaya ngeen wax ñu waxtaane ko tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa wàccee téere bi ci moom am na yonent boo xam ne suñu bàyyi la ñun xeetu yonent yàlla muhammad am saar bii ko tudde ci alquran muy sorte ibrahim سونو بروم نمكو تامبالي الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم يلا نه تيري بي انزلناه اليك من ماكو واتي تي يو كيب كو خامني جانغالي كاتو القران دا ولا يانتي وارو ميم ميسيو بيغا يور لا تي جيتو موي لان لتخرج الناس من الظلمات الى النور nga génné nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer ay min dhulumati dunya ila nuril akhirah min dhulumati aljahli ila nuril ilm nga génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer bi idni rabbihim ci seen ndigalu borom kon war wi soo ci nekkee sunu borom moo la ci jàppale nga ne ko sunu borom téere bi nu mu mel est-ce que bagage yi téere bi doy na est que doy na pour ma convaincre nit ki jële ko ci lëndëm andi ko ci leer mu delluwaat ci saar woo xamante ne beneen yonent lañ ko tuddee muy suratu Hud alif lam ra ba nekkoon fële moo ñëwaat kitaabun uxkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun xakimin xabir kitaabun uxkimat ayatuhu dañoo paqueté li nga xam ne mooy aaya mat ci côté yépp thumma fussilat ñu daal di koy leeral بينت شرائعه واحكامه من لدن حكيم خبير كون موتاخ ميسيون بي لومو ري ري تيري بي دوي نانيو سيك وعليكم السلام باي احمد كوم كان نوي تنك يونتي يالا محمد عليه الصلاه والسلام دا فا غانيسي ادونا فيك بايام فاتو مو دادي موج صبر مو غانيسي ادونا ci dir bu yagul yaayam fatu fa sabar mu dadi muñ ci dir bu yagut manam mi ko yoron fatu fa sabar sabara mundu si gari mu muñat ci dir bu yagut bayti xam di abi talib fatu fa sabar mu muñat soxnam si ko don dimbali muy xadija tuufiyat fa sabar خديجة فاتو ممون ذهب إلى أخوالي دمنا تاي نجايم غاي دادي كوي دور با تانكاي ناتي فصبر يلا يبال ملائكة مو دمتي موم نيكو محمد سوما برام جوخنا من نديغل من ما يلف خير يك مونتانيب yep soma joxe ndigal ñaari montagne yi ma deub ko ci kaw wa mak ñu faatu يلا baal دانو danoo xamut خالد بن وليد ولا Walid حمزه nga xamne mo moo doon dox digganteem mak kep ku ko bëgg toroxal qutila fi Uhud fa sabar ñu ray Hamza yent yàlla Muhammad muñ duriba ashabuhu wa turidu wa ukhriju min makkah fa sabar ay sahabam dañ leena dur génne مك makk seen kër وصبرهم fa sabara wa sabarahum wa لكن لما امتنع الناس عن قراءة كتاب الله قال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بغاي لانكين دون جانج تيري منك ولا دون كو تلا ديبوزي بلنتم بني بلنتم لما سديبوزي ديبوزي تي والشكاية على الذين لا يقرؤون القرآن أو الذين لا يستمعون إلى القرآن أو الذين ما آمنوا به أو الذين لا يعملون به أو الذين لا يتحكمون إليه أو الذين لا يستشفون إليه بغاي جانغولي تيري به وقال الرسول سونو بروم بي لكو يا رب يوسما بروم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سما وقت تنقلن القرآن الكريم دون جنق القرآن متخ سجم يرمب لا يجتير بيب تن تبني لا يا مونك بلنت بيانت بي ديبوزي في محكمة حاكمه يوم القيامة رب الجلال يونتي محمد ديبوزي بلانتي تي بيني لان تي تي تيربينال بو خامتيني بروسي بي يوم القيامة اي يوم الحساب يوم القيامة موي بروسي بي جوج بيغا خامتيني موي جوخي اتي بي رب السماوات والارض له ñun ñepp ku nek ñu daldi fay tok téré bi ñu daldi koy taaj taaj la daal di liir bi yonent yàlla muhammad alayhi salatu wa salaam muy lan baynaka wa bayna alquran hal anta min hajarati alquran ndax yow da nga bokku ci ñi tongon alquran alkarim la déet mbok yi jombul amna ku fi tok jàpp na ne te génne na bopam ci ñi tongu alquran dañuy doylo waxu benn borom xam-xam comme ni ma ko waxee waxtu waa ñu tënk kon dañuy doyloo waxu benn borom xam-xam su ma ko tuddee ñëpp doyloo ko muy ibnul qayyim al jawzi mu ne tongu alquran al karim juróomi façon la am na ci mbooloo mi koo xam ne juróomi façon alquran yépp daf koo tongu maanaam dafa tongu ci juróom yépp kooku moom wax dëgg fi yàlla pen bi suñ ko ko dóoree rek am ci koo xam ne Ben benn façon tongu la tongu kon ku ci nek dañuy lim juróomi xeeti tongu alquran yoyé ku nek nat ci sa bop so fi jugé ndax muccu nga ci juróom yoyé wala problème nga amoon ak benn rek so démé kër nga defar li rek djublu way bi parce que fuñu ñu gaay jang ba ñepp contane ñu jël benn laye ci alquran doynañu laye bi rek suñ ci doon waxtaan ba 22 heures du jeex waaye dañ koy tënkee ci façon boo xam ne ku nekk soo ñibbee nga xam ne lii laa rootee ca laaya ba Ibnul Qayyim al Jawzi nee na juróomi xeeti tongu alquran moo am ba ci jëkk mooy hijru samaa'ihi wal imaani bihi mooy tongu déglu ko am na koo xam ne noppam yi anti alquran yi alquran daf koy déranger hijru samaa'ihi dafa tongu déglu moom kay jëmmi otoom nee man damaa bëgg alquran te otoom foo ko fekk ndaw rabbin lay dégg bëgg nga te doo ko déglu borom gis nga sëñ bi naxante bi dafa bari xubbul kitaabi wa xubbu alxaani alghina fi qalbi abdin laysa yajtamiaani dañuy naxante bëgg alquran bëgg leneen mënta daje ci xol di bëgg téere bi di bëgg leneen mënta daje ku farak téere bi nel moom laa faral ku farak leneen nel loolu laa faral alquranu qabla kulli shay wa baada kulli shay kon bi ci jiitu mooy tongu di ko déglu ak tongu gëm ko lii la ibnu qayyim al jawzi wax ba ca topp mooy hajrul amali bihi gaa yu bari nag fa lañ daanoo hajrul amali bihi mooy tongu jëfe ko am na ko xam ne moom daf koy déglu moom wax dëgg fi yàlla su fekkee déglu rek daf koy déglu foo ko fekk écouteur yaa nga fa waaye su dara desul jëfe moom mooy li fi imam bu tedd bi wax yal na yàlla barkeel lay waxam dafa dugg ci suma xol yal na yàlla sàmm ko am na koo xam ne daf koy déglu waaye ci deuxième point ba fa la daanoo mooy jëmmi jëfe ko hajarul amali bihi su gaa yi jëfee rek mu daal di daw udu nnaasa bi axlaaqikum kon mbokk yi képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran wala di koo déglu te doo ko jëfe na la leer na ca deuxième point ba nga daanoo yàlla ñu yàlla may tawfiqu ñuy jëfe téere bi ñetteelu tomb bi nga xam ne moo dugg ci pelante bi yonent bi mooy lan hajru taxkiimihi wa taxakkum ilayhi mooy tongu boobu nag ñaare ci loxob état la ne mooy tongu jël alquran di ko atte woo maanaam suñu tribunaux yi article yëpp ay aaya alquran la war nekk tribunal yi alquran lañ fa waroon teg ca wet ga lépp loo xam ne nit ki ñëw na mu wax walla mu def ba pare juge bi ak a neexoon mu tourné mu ne ah sëñ bi de yow de lii nga def de aaya sàngam teg na la daan sàngam wala aaya sàngam setal na la loolu nag pelante bi bu yowmal qiyaamee njiitu réew yi fi aw su ma yàlla laajee ñi ma fekkee bokk naa ko ne at sàngam ba at sàngam diwa fi nekkoon lay wax da yaa fi nekkoon at sàngam ba at sàngam Macky Sall yow at sàngam ba at sàngam su fekkee dinaa ko fekkee ma ne ko diwoon da foofu seetalal sa bopp rek اي دي بروتيزي ني دي جاي خريط خريط لو امول يوم القيامه دي الاخلاء يومئذ بعضهم عدو الا المتقين القران خمول نافق دا اللير لير كن كون هجروا تحكيمه والتحكم اليه لولو نياري خاج التحكيم العام موي ديف ان تنك اي ارتيكل كي لولو تي لوخي ايتا at attaxakkumul fardi di ca atté wo lolou yo la war da ngay gis ko xamné ne yi ñun ñi ñuy xawa a tuumaale léeg-léeg tuuti ci xam-xam so deful nank rek nga dal ca da ngay gis ko xamné ne na boppam masalan nit dalay bëgg laaj lu ñuy lek xolal da dem ca marché ba jënd ko lek ko ba mu rees mu lay doon laaj ndax nga nam dit da ngay gis waji digënté jëkër ak jabar da koy fase trois fois fase mu lèr nañ <laughs> nob gi mu nob ndaw si dina xolal dina jël wax ji di ko diko di pour yow nga ne ko dara neeku ci mu ngi melni waji dafa wo sama benn xaritu borom xam-xam dafa am waji ko ne ko señ bi mu ne ko wa mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma tak ndaw si bu xaar quoi parce que so gisé lu baax lu bon yëpp dama koy tak jarul xaar <laughs> ñaanam yow ñaanam rek <laughs> da senegal gars liñ bëgg rek da nga gis ku lay laaj motax képp kuy fatwa wala képp kuy ubbé ci diiné ji defal nank gars yi ay arnaqueur lañ dañ lay arnaqué gis nga nam ko bëggé lam bëgg nga tontu ko non la la koy laajé da koy jaral mu dem marché Colobane fekk fi gars yi jaayante téléphone ba mu comprendre sen communication mu door ñëw ci yow motax faw nga mel ni Matar ko juddo Medina faw nga muus dañ lay nax balaa ngay daanu ci kàmb googu yomal qiyamah kon lépp loo xam ne yow mën nga caa attewoo dellul ca alquran balaa ngay daanu ci troisième tomb bi yowmal qiyaama kon troisième bi mooy hajru taxkiimihi wa taxakkum ilayhi ñeenteel bi mooy hajru tadabburihi mooy lan nga daa di nga daa di tongu càmbar alquran dafa am ñoo xam ne nañ koy jàng muy neex rek wala nañ koy déglu wala di ko dégg muy neex rek laaya bi faw nga koy càmbar di càmbar lu tax yàlla waxee ko nii maanaam càmbar googee moo lay jural nga mën a gis taaruk alquran ngay gis yéeme gi nga xam ne al ijaaz al lugawiya bi ci nekk ijaaz yi nga xam ne moom moo ci ñëw mooy tax nga mën cee istinbaat ahkam yoo xam ne di nga ca jëriñu ca jëriña ca waaye tadabbur bokk na ca la la koy gën a yombalal dafa am ay bagages yu mu laaj faw nga góorgóorlu ci xam-xam nga yaatal ko nga fexee dégg arab lool maanaam góorgóorlu ci ilma nahwa ilma balaaga ilma sarfa ak xam-xam ya nga xam ne mooy tax nga mën a gën a dégg arab lool comprendre laaye gii alquran taxta kulli xarfin ijaz wa taxta kulli kalimatin ijaz gis nga araf boo jël ci alquran araf bu nekk li tax yàlla teg ko fa am na lu tax maanaam soo ko fa roccee rek nga yëg ne aaya bi am na lu ci manqué te jii xam nga nit ki mën nga di tari leneen ba nga daal di juum nga daal di koy këmafale daal di dem mais gis nga alxuraan même sooy jiitee ñoo xam ne kenn ci ñoom aggul fa ngay tari saa yoo fi teggee ab baat ki nekk sa ginnaaw dina xam ne imaam juum na imaam moom day day naqasaale rek moo tax soo juumee taxawal taxawal taxawal xoolal fereeneel nga fay oto bi droite taxaw ñu gàgganti la soo ko mënul su fekkee jot ngaa tari laaye rukool soo ko mënul arrière nga jël xul wallahu ahadun du fees poos kenn du ko naqasaale kon gars yi nañu tadabbur alquran afala yatadabbaruun gi nan ko bàyyee xel xanaa ñoom du ñu càmbar du ñu saytu alquran mag ña saytu alquran moom moo leen mayoon xam-xam yu yu yaatu gis nga alquran soo ñëwee ci wàll lu baax tuyaaba su fekkee tuyaaba la tax a toog mënoo koo amee ci leneen lu ëpp toog di jàngal quran su fekkee ci tuyaaba rek danga am 30 minutes yoo bëgg am loo wax mënoo am lu ëpp toog di jàngal quran tuyaaba su fekkee jëmmi gaaw a àgg ci yàlla amul yoon wu gën a gaaw alquran su fekkee jëmmi ak lu mu mënti nekk mënoo am lu gën a rëy alquran al karim xam-xam mënoo ko amee ci feneen fu ëpp téere bi moo tax saa yoo demee ba jeexal alquran ba jeexal ko ba jeexal xam-xam ya ca war a mën a juddoo su la neexee nga topp leneen teg fi téere bi moo tax bépp programme bu amut eh, lenn lu ko yeewatle wala lu ko yenkewal ci téere bi manqué na kon ñeenteelu tomb bi mooy hajru hajru du hijru hajru hajru tadabburihi mooy tongu di ko càmbar juróomeel bi mbokk yi mooy hajrul istishfaa'i bihi mooy tongu di ci faju tomb bu compliqué nag kon suñu waxee istishfa bil quran mooy am na ay adkaar yoo xam ne rot na ci sunna lu mel ni fatiha am na laay yoo xam ne dara di met nit ki nga teg fa loxo nga daal di koy ñaanal nga daal di koy jàng mu daal di wér ar ruqiyatu shar'iyya dafa am ay churut yu ñu koy defee waaye nga jëw wéet ak xale bu jigéen yow kese ci néeg bi mu sol lu ko neex ngay yuux ko ca nopp ya naan dama koy ruq ya looy ruq ya yow koy ruq yoo ko dara xaw ma da ngay ruq xaw ma da ngay tarq ya kon loolu yaakaar naa bindu boppam lay doon Seydi Souleymane ahkam wa kayfiyat al istishfaa bil quran dinaa ko def audio bu gudd boo xam dina dinaa la ko yónnee parce que su ci naree yaatal dafa am ay shurut am ay dawabit yoo xamante ne ca nga koy ca nga koy tënk ndax soo ci xawee dugg te leeraloo rek mën nga gën a lëndëmal kon mbokk yi alquran wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa wa rahmatun lil lil muminin kon yàlla dogal na waxtu wi xaw noo tënc moo tax thème bi ñu daal di ciy doyloo waxu boroom xam-xam bii muy ibn al qayyim al jawzi muy juróomi tomb yi nga xam ne lim nañu ko ne mooy xeeti tongu alquran ku nekk ci ñun bam ko dégloo ba pare xam nga sa problème fan la nekk ndax ci déglu gi la ne wala ci jëfe ji la nekk wala ci attewoo bi la nekk wala ci càmbarko la nekk walla di ci fajoo la nekk yàlla nu yàlla yéwénal ba bu yowmal qiyaamee ñu nekk xaritu alquran waaye ba bañ a bokk ca ña nga xam ne dañ nuy atteeg alquran ñu womat ñu jëme ñu sawara yàlla na yàlla wàccee barkeb alquranul karim ci bii lay gox. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ñu ngi nuyu mbooloo mi sant yàlla subhanahu wa di jël di salmal seen bi sallallahu alayhi ñun ndaw Tëngéej ñu ngi dalal képp koo xam ne ñëw nga fi waaye itam ànd ko àndi seeg suñuy yaay ak suñuy maam ànd seeg suñuy mag ak suñuy baay ànd seeg itam suñuy rakk lii nag ab journée la boo xam ni mbootaay bi ñu dippee njabootu alquran bu Tëngéej ñoom ñoo ko organisé ñu bëggoon rekk indi ci gàttal lam mooy njabootu alquran bu Tëngéej njabootu alquran bu Tëngéej ay ndaw yoo xam ni dañoo bëggante te yàlla tax ñu xamante ci jaamu yàlla ñoom ñépp yàlla dogal ba ñuy xamante si biir jàkka la ñu xamante mu nekk loo xam ni lu am solo la waaye itam ba ñu xamante si biir jàkka jooju ñu daal di bëgg jàppalante si teer yàlla subhanahu wa taala képp ku tane sa morom jàppale moroomam saa saa ñu nekk si biir jàkka yi saa saa ñu nekk si biir kër yi di jàng ak a jàngalante lii di téere alquranul karim si lan si njàngin boo xam ni njàngin bu set lay doon njàngin boo xam ni dafay dëppoog njàngin yun saa sallam kama unzil comme ni ko yàlla subhaanahu wa wàccee si yun saa sallam si noonu lañ nekk di nab nab di góor góorlu ba yàlla dogal ñu daal di am idée bëgg yaatal li nga xam ne moom lañ nekkee ñu suñu biir mooy ñaari volet yi nga xam ne mooy objectif association bi euh, di njabootu alxuraan bu tëngéej mooy naka la ñuy def ba problème bi ñu gis fii tëngéej ñun ñëpp te mu nekkoon suñu tem tey mooy dafa mel ni wala bokk dañoo yëg ni ñun ndawu tëngéej ñun ndawu tëngéej dañoo dummoyu alxuraanul karim dañoo yëg ni lu ëpp si ñun lu ñuy gën a topp mooy njànginu français léeg sax nga bàyyi ko doo ko àggali waaye nga dem daal yi topp leneen loo xam ne nekk alxuraanul karim loolu ñu yëg njàngatuñu ko waaye itam xamatuñu ko waaye itam jëfewutuñ ko ñun ay ndaw lañ te xam nañ li ñuy wax si dëkk bi lañ dëkk mu nekk benn feebar boo xam ni il faut ñu xool yan traitement la koy utal te yàlla xam na ni doy na alquran sëkk mu nekk traitement si bépp feebar alquran shifaun wa yunazil min alquran ma huwa shifa alquran lépp lay faj loo mën a gis si gàttal looloo taxoon ñu ne nañu yaatal mbooloo mi la moo tax ñu bëgg nekk man peut-être Tamsir Ibrahim Omar ñun kese ñuy dajale di jàng waaye nañ ko gën a yaatal léegi nag mu nekk loo xam ni dafay ëmb mbooleem mi jeune Tëngéej waaye sax ndaxte Qur'an amul âge mbooleem kii yeewoo Tëngéej war nga see mën a bokk war nañ gën a mën a yaatal Alqur'an war nañ gën a mën a def propagande alxuraan ngir mën nit ñi mën see delluwaat loolu mooy premier vélo bi vole bi deuxième butu association mu nekk lan mu nekk jàppalante te yàlla tax si fànn wu nekk nag récemment si weeru koor gi passé amoon na ay actes yoo xam ne ñu ngi ci àndaloon ak beneen association muy tuddee fii Sabilillah Sénégal ñu daal di def ay ay actes sociaux yoo xam ne alhamdulilah fa lillahi alhamd

wallahi Tëngéej dina nekkaat loo xam ni dëkk boo xam ni danañu ndaw dañuy ndaw seeni ndaw waaye itam lépp loo xam ne dañ koy organiser bi Tëngéej duñu soxla keneen comme bés yi di am bés bii dañoo dem jël yeneen i ndaw ñu jóge fu ne nag ñëw taaral ñu bés bi ci alxuraan waaye am na si ñoo xam ni jànguñu alxuraan gese dañoo jàng alxuraan waaye nekk ay cadre di liggéey di am salaire mensuel comme ñëpp nekk ay fonctionnaire la moo tax yéen ndaw yi nga xam ni peut-être ñu ngi fii Tëngéej mënuñu def ñu leen lu mën a lu mën a am la waaye balaa moo am il faut ñu def ay sacrifice sacrifice nag nekkul leneen lu dul comme ni ko cheikh bu waxee léegi bëgg alquran nekk si al nekk ak alquran amul tricher bëgg alquran يلا ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه ما نم خل بين لا سيب دن دن منو ام نياري خل دا غاي بغ القران ولا غا بغ لنين بو نيال القران نك دين گم بسي بو لنين نك موي لو خامني بدات لنين لو خامني يالا سبحانه وتعالى گرمكو كون نين ديل وات سي القران لول موي اوبجيكتيفو اسياسيون بي دي جابوتو القران بو بو تانگي alhamdulillah ñu daal di remercier itam gox bi nga xamni seen si wallahi fi yaakar na ñu fi xam wul parce que man euh defana tam seen ñi gëna a xam côté bi waaye dañoo yaatalal dañoo yaatalal mën nañ ñëw ñu xatal ñu ñoom ñep waye wallahi dañu ubbit buntu yep mu nekk lu jafe kon day wone ni peut être hospitalité bi nga xamni mom lañ doon sentu si julit ak moromam mu ngi fi alhamdulillah yalla yalla yàlla fay leen ñoom ñëpp bu lol weesoo ñu daal di gërëm ki ñu ko tay muy Tamsir Diop El tam sir job ñu daal di gërëm tamit suñu yaay ñi nga xamni bo ba tay ñu fi suñu bay ñi nga xamni ne tambalé wala la ñu tambalé ñu fi wax deug yalla yalla yalla fayal ñu len amuñu seen fay yalla yalla yaatal wërsegam te sa mbër teg seen kaw yéen ñëpp yàlla yaatal nga xam moy nurul quran def si nga xam moy nurul iman yalla yak taqo ya manam yalla yokku taqwa bi ragal yalla gi yalla nangul ñu jaamu yalla yi te yalla jéggal ñu nga xam moy bakari si gatal lool lañu amon ñuy wax la nga xam si si borom bi yalla subhanahu wa taala waaye lépp su dëng si ñun ñi nga xam ne doon jéem a leeral la bismillahi arrahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa walam yulad lam yakun lahu kufuwan ahad بسم الله rahim